asalaamaaleykum wa rahmatullah taxala wa barakaatuhu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu sama waajur sëriñ Moustapha moom sëriñ Masamba di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér Mbàkke di nuyu Sénégal yépp di nuyu mbokki jullit yépp man nag dama jaaxle lool ci sunu Sénégal gi ndax euh, naqar wu tiise nii bu dalee ci kaw diine lislaam ak Sénégal cër bi mu am ci lislaam ak sunu maam yi liggéey gi ñu liggéey ci lislaam li ñu liggéey ci diine lislaam sunu porte-parole porte-parole yi nga xam ne ñoo nekk ci këri kilifa diine yi ñoom ana lan mooy seen rôle ci mbir mu rëy mii dal ci kaw diine lislaam ñu fekk sunuy mbokki jullit ci seen jàkka ñuy julli ñu roose leen ay bal ba ñeent fukki nit ak juróom-ñeent faatu ca ba imaam yi génn di ko naqarlu financé ci seen alal wane ci seenu naqar ñoom ñu ni tekk tekkaaral ñoom porte-parole yi bokk ci këri kilifa diine yii kenn déggu leen ñu yëng-yëngal pourtant bu fekkoon ni ay malete xaalis lañ leen di indi dañuy yëngu-yëngal dañ leen di dégg gis leen ci tele yi gis leen ci rajo yi ñu di leen wane lan moo tax bi naqar wu tiis nii dalee ci kaw diine lislaam génnu leen naqarlu ko moo ne yéen seen kàddu la ñépp di diglu ndax yéen fi nekkal diine lislaam moom daal bu ñu leen di indil ay maleti xaalis ñu di leen dégg bu awtis dalee ci kaw lislaam ngeen ne tekk tekkaaral ah loolu de du seen cër sëriñ Tuubaa de keroog bi ko tubaab bi di jàpp di yóbbu bu ni woon duma dem walla mu ni lan laa def wala mu ni kañ laay ñibbisi wala mu ni kañ laay dellu si sama njaboot gi kon du am ndam bu waxoon ni kañ laay delluwaat sama njaboot gi wala kañ laay ñibbi wala mu ni leen dama xiif wala mu ni leen dama mar kon tey lii ko yàlla faye du ko fay waaye Serigne Touba am na ndam jërëjëf Serigne Touba aka neexoon ngeen mel ni moom yéen porte-parole yi yéen porte-parole yi kër kilifa diine yi aka neexoon tey ngeen mel ni Serigne Touba. waaye daal bu leen di indil ay malite xaalis ngeen ubbi seen port ñépp di dugg bu aw naqar aku tiis dalee ci kaw lislaam ngeen ne tekk tekkaaral waaye lislaam wéet na lislaam jooy na waaye jërë ngeen jëf yeen imaam yi Sénégal xeexal ngeen lislaam dëggal ngeen seen bopp financé ngeen seen alal waaye jërë jëfatee Serigne Touba jërë jëfatee Sidi Lamine Niass jërë jëfatee Serigne Sidi Lamine Niass xeexal nga lislaam financé nga sa alal ci lislaam lu ni fàng kenn du ko jeex ndax danga ubbi ab tele delloo ko ci lislaam tudde ko alxuraan jël fa ay sénégalais ñuy liggéey nga di leen fay dundam gépp def na ko ci lislaam alalam yépp delloo na ko ci lislaam ba wàcc yàlla nañu ko yàlla fayal sëriñ Sidi Lamine ñas ñun nag dañoo dëkk ci réew mi doon sénégalais doon doomi soxna comme yéen ubbi suñuy bët di xool am lañu ñu naqari ñu koy wax comme ñépp lii dafa ëpp tekk tekkaare ji dafa ëpp jël leen seen milliards yi ngeen rënk ngeen financé ko ci lislaam comme sëriñ Sidi Lamine Niass jël leen seen milliards yi ngeen rënk ngeen financé ko ci lislaam comme sëriñ Sidi Lamine Niass gis nga milliards yi ku ko rënk dangay dem bàyyi ko fi say njaboot di koy yàq ñu koy def si lu neex yàlla wala ñu koy def si lu naqari yàlla waaye bul xam léegi nag balaa loolu di am nga def ko si lu neex yàlla financé ko si lislaam dimbali si jaami yàlla yi nga xam ne ni dañ koo yittewoo moo gën rënk bi loolu laa amoon si lu ma leen di wax wasalaam